bokki jullit yi bokki téléspectateur u RTS ñu ngi dellu siwaat ci mbaaxu yàlla ak ndimbalam ci seen émission bi ñu tudde al mizan di daaray seydina muhammad sallallahu alayhi wa nuyu kilifa diine yëpp ziyaar leen ñaanal leen yàlla tey sàkku ci ñoom ñaan ndokkeel bu baax nag sëriñ Muntaqa Mouhamadul Bachir ak mboolem njabootu Xaadim Rasul waaye mbooleem jullit yépp ci xew-xew bi nga xamee ni fa jóge nañu ci mu di màggal gi mu doonoon jotaay boo xam ni nag jàngale yu bëree bëri feeñ na ci yàlla nu yàlla may dégg yàlla nu yàlla may topp mu yàgg koo jiite ñu ñëw nag tey ci sunu waxtaan ci hadis bi nga xam ni ñu ngi ko jëlee ci abi hurayrata xam ne wax naa leen ni daara ji moom ñu ngi fas yéene jéem a tënku ci jàngale Seydina Muhammad yàlla moo ni wa ma yantiqu anil hawa du waxe mukk moom yonent bi bànneexu bakkanam yàlla ni ñu comme du waxe bànneexu bakkanam nag lu mu leen indil jàpp leen waaye lu mu leen tere bàyyi leen kon lu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal jëlal jàppal jëfel waaye lu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere moytul bàyyil tabul fa jaar te dafa am juróom ñaar yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéen sama xeet maa ngi leen koy moytuloo ndax day alak nit da koy yàqal addunaam da koy yàqal àllaaxiraam juróom-ñaar yooyu nag kenn ku ci ne na xool na déglu ana ban la ci nekk mu fexe nu mu ko bàyyee balaa muy dajeeg boroomam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ijtanibu sab'al mubiqaat qaalu ya rasulallah wa ma hunna al awwal qaala ashirku billahi wa sixru wa qatlu nafsi allati harrama allahu illa bilxaqi wa aklu riba wa aklu maalil yatim wa tawaffi yowma zaxfi wa qadfi almuxsanaati almuminaati alxaafilaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na juróom-ñaar yi daal maa ngi dénk sama xeet nañu ko moytu kon yéen ñi seetaan maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp nanu moytu juróom-ñaar yi bu njëkk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na na ngeen moytu na ngeen moytu bokkaaleeg yàlla ashirku billah bokk yi jamono dem na ba gi yàlla dafa mel na daal dañu ko woyafal dañu ko woyofal te yàlla wax ci alquran ni dina baale lépp ba mu des ko ma bokkaale inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi waaye wa yaghfiru ma duna dalika yàlla nee na dinaa baale lu ne ba mu des ko ma bokkaale moo tax bokkaale yàlla nekkul lu yomb ndax yàlla du ko baale waaye nag nanu moytandiku bokkaale gi yàlla boo duggee ci shirk nag lu yëngu rek lu yëngu rek nga teg ko keneen ku dul lu yëngu rek nga teg ko keneen ku dul yàlla loo am nga defa ni keneen la ko jox ku dul yàlla loo ñàkk itam nga defa ni keneen la ko xañ ku dul yàlla soo feebaree jàpp ni keneen la feebaral ku yàlla boo ñàkkee jàpp ni keneen la ku dul yàlla mel na dafa am keneen ku mën a dogal ku mën a def ku dul yàlla ak loo mën a samp ak loo mën a jaamu lu dul yàlla bokkaale la wata yàlla nee na inna allaha yaghfiru zunuba jamian dinaa baale bàkkaar yëpp waaye nag duma baale bàkkaaru bokkaale muy benn ñaareel bi itam mooy sexru njibar xam nga ñaan yàlla aayul ñaan lu yàlla ayul waaye njibar baaxul njibar baaxul parce que boo duggee ci njibar gëm njibar da ngay yàq sa adduna da ngay yàq sa àllaaxira parce dal dootoo dal nit su gëmee njibar du dal ndax dafay defe ni am na ku mën a def ku dul yàlla day defe ni am na ku mën a def ku dul yàlla wala yuflixu saaxiru xaytu ata ra yàlla ni ñoom duma leen duma leen nangul mukk kon yow mi xëy am lu la jaaxal ñaanal yàlla ñaan lul yàlla waaye nag ndax addu'a u silahul mumin waaye moytul njibar mbokk yi lu lu yaatu la nag lu yaatu la yow mi nga xam ni yaa ngi toog di seetaan te jàpp nga ni lu xew njibara la ci mën a génne ray def sacrifice def nangam musiba yu bëree ngi am te njibara ko waral njabar dina tas sa kër dina tas sa mbokk dina tas sa xarit dina la yàqal parce que da ngay dem ba gëm ni ñoom la waaw jullit buy xëy di génn këram ala lu gën a garanti ana lu gën a garanti bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi samaai wa huwa samiu alalim ana lu ko gën a garanti ñaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim ana lu ko gën a garanti waaye topp njabar sottil ndox meeg sa buntu bu kara yi rataxe nga tarxiis damm looy wax kon nanu gëm yàlla bu ñu bokkaale ak yàlla te gëm njibar nanu moytu njibar baaxul nanu ko maytu ñetteel bi mooy waqatulu nafsi allati harama allahu illa bilxaqi rey bakkan bu yàlla reyul bokk jullit yi bokki téléspectateurs yi léegi ñaate nit ñooy reyante par bés rey ay xale rey ay mag reyante reyante goo xam ni dara waralu ko lu dul rek poñu xitu àddina te yàlla nee na man qatala nafsan mutaammidan fa jazaauhu jahannam ku bakkan te tey rey gi ko rey yàlla nee na sa pay ci man mooy tàbbal la biir safara léegi nag reye gi bëri na torop lan moo ko jar lan moo jar rayante gi bakkat boo mënula defar mënoo ko dundal noo ko rayee wala dinaay wax ni képp ku ne gox ba nga dëkk boo fa gisee kër goo xam ni du ubbi bëccëg guddi ba guddi lay ubbi te am na ñu fa dëkk te xamuñu leen nanga leen signalé waaw parce que léeg-léeg gis gox benn kër goo xam ne kër gu dul ubbi taam nañu fa dëkk mais lu ñu fay def lu ñu fay def léeg nga gis xale bu génn dellu seetul yónni naa la ci koñ bi dellu seetul amaana fat nañu ko ca kër yooyu bu guddee nag ñu sàkkal ko pexe bokki jullit yi bokki téléspectateurs yi ñetteel bi daal mooy rey bakkan tegoo ko fenn lu dul sa bakkan ñeenteel bi mooy wa akulu riba lekk riba di dund ci corruption ñu di la ger ngay sacrifier ay nit ngir alal riba rek ngay dundee te mbokk yi alal ji lu mu bëri bëri loo ci tabax tabax tabax lu kër gi rëy rëy benn néeg ngay tëdd ci benn lal ngay tëdd te lal ba doo ko fees kon lu fi jar dunde riba yàlla nee na daganal naa commerce waaye araamal naa riba wa axalla allahu albay'a waaye wa xarama riba ah yàlla nee na daganal naa commerce waaye araamal riba xaraamal naa riba kon ñi nga xam ni seen dundu seen wutum alal yépp ñu ngi ko teg ci riba nañu ko moytu dalay alak adduna dalay alak alaxira riba baaxul bokki jullit yi bokki téléspectateurs riba baaxul nañu nañu ko moytu lu ñu mën dalay alak adduna te dalay alak alaxira bi des mooy wa akulu maalil yatim yonent bi nee na na ngeen moytandiku lekk alalu njirim bàyyi dem nga mag ci kër gi toog ci alal ji lekko ko bàyyi say rak te yow mi taaw di góor ak caat mu góor yéen yem ci alalu baay alalu miraas maala mag di góor amu ci amul looy ëppale ci maala mag lu dul yaa ko yilif waaye xale yu ndaw seen baay dem nga ni maay seen nijaay wala maay seen rakku baay wala maay seen taawu baay tëdd ci alal ji lekk ko xañ ñi ci des seen àq pour lan pour lan nga lekk ko ba nga xañ ñi ci seen àq bul nangu mukk lekk alal ji bàyyi ñi nga ko bokkal may seen nijaay jël alal ji noose ko alalu njirim moytu leen lu ngeen man wala taqrabu maalal yatim illa billati hiya ahsan maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp nañu moytu alalu njirim alalu njirim dafa garaaw bàyyi dem bàyyi fi njaboot bàyyi leen fi alal ngeen noo sa alal jëpp xale ya màgg ni ana lu fi sunu baay bàyyi woon allahu akbar lekk alalu njërim baaxul kenn du lekk alalu njërim may seen nijaay nijaay luy sa yoon ci alal ja ba koy lekk soo ko yow kañ aaral ko say jarbaat fexeel ba bu ko azaka jeexal loo leen ci mën a teg ci yoon xam nga ko nga teg leen ci jàppale leen waaye tabarakallahu rek kenn xamul lii lan la kenn xamul lii lan la lekk ko tëdd nalaw te xam nga ni bàyyi mi dem bàyyi ko fi du la fi ndax li ko fi jële dina la fi jële bi des eh, alalu njirim li may faral di wax ni ku liggéey ba bàyyi fi alal moom ma dem la mu bàyyi doyu ko yéen ñi ko seq ku ci bëgg a am lu doy da ngay nax sa bopp lu kenn amoon te doyu ko bu ko nga bëgg cee am lu la doy da ngay nax sa bopp doy lu rek a fi ne alqanaatu kanzul la yafna doylu rek mooy alal yi ci des yëpp du dara kon njëriñ yi nañu leen nañu leen nañu leen protéger nañu leen sàmmal seen alal waaye bu ñu lekk mukk alalu njëriñ moo xam ngay rakku baay moo xam ngay magu baay mooy xam ngay nijaay moo xam ngay taaw moo xam ngay xaritu baay alalu njëriñ mooy tul yonent bi wax ni dafay alage la ci la bokk bi de si tam wa tawalli yow ma zax fi nee na daw bésu xare mooy daw say responsabilité rek nit du daw responsabilité am da koy jël ba mu mat ànd ak yàlla jël gannaaw jox yàlla lu neex way teg ci nit du daw coowu penc mi jarul daw say responsabilité xare jot nga nga nga wor nga trahir ña nga àndaloon kenn du ko def bésu xeex bésu xare bu laajee sa bakkan na dem nga teere ji aljanna parce que boobu bu xare masaana jot day am ñoo xam ne dañuy daw dañuy daw dañuy bàyyi ba dernière minute tabaarakallaahu rek a ah, ñu dugal ca ca bokkul moo na yonent bi nga xam ni jàngale rekk lay def jàngale rekk lay def nee na mooy tënduku leen daw bésu xare kenn du daw ànd ak ay nit jël engagement ba ca biir nga wor leen ba ca biir nga war leen loolu baaxul engagement boo mën a jël ak mbooloo ngeen ànd jëlandoo ko fexeel ba bul ca dellu gannaaw bu deelu yàlla gërëm bu deelu yàlla gërëm waaye ku engagé loo xam ne yàlla gërëmu ko mais bu la yàlla baaxee nga dëpp dellu gannaaw waaye lu yàlla gërëm nga engagé lu toll na xare ku ca faatu dem aljanna nga engagé engagement bu tol noonu nga wor nga daw yaatu na nag yaatu na nag bi de ci tam mooy waxad fi l muxsanaati l muminaati xas gor xas gor nga nga nga tuumaal ko nga tuumaal gor taqal ci deram lu ñaaw nga taqal ci deram lu ñaaw même bu sàgganoon sax war nga moytandiku ju ko wili pande ci wax ju ñaaw rax ci dolli nag gor su set wicc sangewu gëm yàlla nga nga nga takkal ko ci lu ñaaw mbokk yi noonu moytandi ko xasante bi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp di leen fàttali di fàttali sama bopp noonu moytandi ko xasante waxante lu ñaaw nañu ko moytu nañu moytu waxante lu ñaaw xëy wax lu ñaaw gontu tontu lu ñaaw xëy wax lu ñaaw dontu gontu tontonte lu ñaaw nañu moytandiku loolu kuy njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam juróom-ñaar yii nag Idrissa Gay waxu ko waxu Seydina Muhammad la mu jëloon ko nag di ko bokk ak yéen kon muy man mi wax muy yéen ñi toog di seetaan benn bu ci nit yëg ni mi ngi ci moom na xeex ak bakkanam ba ko balaa muy dejeeg boroomam benn bu ci nit yëg ni mi ngi moom na xeex ak bakkanam ba dindi ko balaa muy dejeeg boroomam kon juróom-ñaar yaa ngi noonu li yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne nañ ko moytu ngeen jàpp ko mooy bokkaaleeg yàlla baaxul njibar baaxul rey bakkan tegoo ko ci dëgg baaxul lekk riba baaxul lekk alalu njirim baaxul daw bésu xare baaxul xas gor baaxul kon nanu moytandiku juróom-ñaar bu nu ko moytoo rek amaana ñu dajeeg ngërëmu subhanahu wa taala lu ñu amoon ci waxtu yi mi ngi tàggoo ñu gërëm caméraman yi ñu àndal ñu réaliser émission bi équipe vidéo équipe technique ñi nekk décor limière son équipe la ñu kenn ku ci ne am na foo féete ba ngeen mën a dégg Idrissa Gueye di ko gis kon man mi wax ak ñoom yal na yàlla faj sunu aajo te faj seen aajo ñu ànd nag euh, ñaanal bu baax euh, suñu directeur général yéene yi mu am ci kër gi yëpp nag yàlla na ko àggaleeg sago ba fi mu bëgg a yóbbu kër gi yàlla kàttanal ko ndax yàlla rek ay joxe doole yàllaay kàttanal yàlla jàppale ko ba mu mottali ay yéenam yëpp nag wax dëgg yàlla ñaanal directeur tele télé ñaanal chef programme ñaanal équipe yëpp nag ñëw ñaanal itam njiitu réew mi ak ñu koy jàppale mbokk yi duma dañ di ko wax Mawlaay Cheikh Al Hadj Ahmed Ndiéguène laa ko daan dégge mu daan wax ni boo yoree sa ëmb dugg ci gaal ñaanal gaal ga teer bu teeree rek nga jot sa ëmb kon njiitu réew mi nañ ko ñaanal yàlla aar ko sàmm ko ba mottali ay yéeneem ak premier ministre am ak gouvernement am yëpp yàlla yàlla jàppale leen te aar leen te musal leen ñu bokk ñaanal itam fa tabaarakallaa sunu bàyyi émission bàyyi El Hadj Abdoulaye Mbeng ñu ñaanal ko ziar ko ak colonel Mamad mi nga xam ne sunu conseil spécial la ànd ak ñun ci émission ba saa yu ci ne yàlla nañu yàlla boole ci humu alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu